je me présente au nom de Bassirou Seck, le président des étudiants tchéchois et aussi le coordinateur des étudiants qui sont aux différentes universités du Sénégal. Aujourd'hui, nous voici unis à l'intérieur de l'Université Centre Diop de Dakar pour des dons de matériel et des dons de tickets destinés aux étudiants tchéchois. Mais en effet, permettez-moi d'abord de remercier l'ensemble de la coordination des étudiants tchéchois non seulement à leur présence, mais également à leur détermination à faire la coordination des étudiants tchèchois une structure meilleure et une représentativité importante au sein du campus social. Aujourd'hui, nous ne serons pas loin, mais il nous tient au cœur de remercier infiniment M. Abdoulaye. Pourquoi Ce monsieur nous a aidés combien de reprises Beaucoup de reprises. sur le plan social et sur le plan pédagogique aussi. Il nous a octroyé une subvention de deux millions destinant aux étudiants qui sont aux différentes universités du Sénégal. Encore, il nous a aidé sur le plan pédagogique en nous octroyant des bourses de formation pour les étudiants. Il ne dispose pas de poste de responsabilité au sein de l'État, mais malgré ses maigres moyens, malgré ses propres moyens, il aide les étudiants ce soir. L'État a dit, dans la vie, il ne s'agit pas de bien savoir, Il nous a aussi appuyé pour faire des bons tickets, dont le matériel. Que ce monsieur mérite un grand merci. Un grand merci. Et tous les étudiants qui soient disent merci à monsieur Ablaye Nous sommes nous fi nekk ñep du nuyu étudiants yi fi nekk yep du nuyu tay gis nga étudiants yi nek ci yep genn nañ parce que le dal a il faut rendre César à ce qui appartient à César. Mettons na lool ñu lancer un appel solennel à tous les autres Thiessois. Maintenant Ablaye Dieye mo ñu revient ñu ñu ngi koy remercier si loolu donte yàlla suñu borom dogal na amul benn poste de responsabilité au niveau de l'État mais téewul Thiessois la te bëgg na étudiants yi lépp loo xam ne luy développement de Thiès la mu ngi koy def ñun ñii di étudiant Thiessois ñu am reconnaissance boobu si li nga xam ni def na ko te amul benn poste de responsabilité si moyen propre moyen lay jël dimbali étudiant Thiès yi kon kooku ñu ngi koy remercier te yàlla rek tax di ko gërëm si au nom de tous les étudiants di ko sant aussi encore une fois mu may ñu ay bourse de formation pour étudiants yi nga xam ne dañoo nekk si école privée yi ak bourse étudiants yi nga xam ne dañoo war a bëgg a jàng si école yi ñu jàng ñu ngi koy remercier encore une fois encore une fois appuyé de faire des dons de tickets et dons de matériel aussi kon sa sa monsieur mérite un yi Dakar fii ñu ngi koy sant baax a baax baax loolu war a tey ñu def benn descente solennelle génne étudiant Thiès yëpp remercier ko wax ni doonu Thiès la te li nga xam ne Euh, autorité étatique bi ñoo ko war a def defuñu ko moom mi nga xam ne nekkul si nguur gi diñuy jàppale diñuy dimbali lépp loo xam ne ñu ngi koy soxla mu taxaw ubbil ñu ay portam ne lépp luñ soxla mu ñëw jàppañu ko kon kooku ñu ngi koy sant di ko gërëm mënuñu koo fay parce que ku di étudiant di amul lu mu ko fayee mais juste pour wax ñëpp dégg ni Abdoulaye Dièye mi ngi jàppale les étudiants ci soirée Dakar ñu ngi jàppale infiniment ñu ngi koy remercier aussi délégation bi nga xam ne moom la indi tey bi ma sœur Ndeye Soxna ñu ngi leen di remercier baax baax di leen wax ni nous sommes et merci beaucoup. Par ma voix, le président Abdoulaye Dièye et l'ensemble des membres et sympathisants du mouvement Siggi Jotna vous décerne un satisfecit. Nous sommes venus ici aujourd'hui par la délégation du président Abdoulaye Dièye pour encore une fois vous témoigner toute notre disponibilité et notre engagement à vous accompagner sur toutes les initiatives que vous allez prendre. Accompagner la coordination des étudiants en Thiessois est un sacerdoce pour le président Abdoulaye Dièye. Bien vrai que l'a dit tantôt, il n'occupe aucune fonction ni étatique, ni aucune responsabilité au niveau du conseil municipal à Thiès. Mais étant un Thiessois authentique, il a décidé tout simplement de venir à appoint, d'accompagner les dignes fils de Thiès dans tous les volets qui constituent la vie sociale. Aujourd'hui, euh, vous l'avez dit, nous sommes venus ici pour assister à cette journée si importante de don de tickets de restauration et de matériel pour les étudiants thiessois. Le président Ablaye vous témoigne encore à vous accompagner. Nous vous encourageons, chers camarades. Nous vous disons tout simplement d'aller, euh, de persévérer, d'avoir le courage et de savoir que dans la vie, sans courage, abnégation, on n'arrive à rien. La différence entre l'école et la vie, à l'école, on te donne une leçon, puis il y a un test. Mais dans la vie, on te donne le test qui t'enseigne une leçon. Donc, euh, toutes nos félicitations et nos encouragements. Et Inch'Allah, le meilleur reste à venir. Merci ah ñu ngi leen di nuyu bu baax suñu mbokk étudiants yi di leen jox aussi nuyoo seen xarit seen soppe koo xam ni yàgg ngeen jaxasoo ak moom muy le président Abdoulaye Dièye bu mouvement Siggi jot na te jii nag jóge nañ Thiès def une délégation euh, man Massaer Gueye responsable des jeunes et secrétaire permanent du mouvement accompagné de Ndeye Astou Konaté aussi membre de la communication et de Omar Diop euh, nekk ci aussi au niveau de la jeunesse du mouvement Siggi jot na ñu ñëw fii par le biais du président Abdoulaye Dièye Ah, teewal ko fi donte moom sax moo bëggoon a sol dàllam ñëw fii parce que moom ak yéen comme on dit le langage de la jeunesse yéen a far donc comme ni ko Bassirou rappelé tout à l'heure depuis le début le président Abdoulaye Dièye a les étudiants par un logement social après mu accompagner leen aussi dans leur formation un accompagnement pédagogique en offrant aussi des bourses de formation pour étudiants yi nga xam ne bénéficier wuñu Euh, comment dirais-je orientation universitaire ñoom ñu mën a mën dem ci école privée yi nekk fii ci Sénégal tamit jànge fa ku doon fay fukk di fay juróom loolu lépp tamit aussi mu nekk benn sacerdoce boo xam ni moom euh, daf ko jël en tant que Thiessois simplement Bassirou mu ngi koy rappeler tout à l'heure que ni amul benn fonction au niveau de l'État wala benn fonction boo xam ne mu ngi koy occupé moom le président Abdoulaye Dièye au niveau du conseil de municipal à Thiès mais da rek un Thiessois boo xam ni yàlla def na ko macha allah mënal na ko gan mu ne ah pourquoi pas ma revenir euh, à ma ville natale Thiès pour accompagner. Euh, jeunes yi accompagner femmes yi mais accompagner étudiants yi nga xam ne tey jii ñoom ñoo war a nekk levier pour l'émergence bi nga xam ne ñu ngi koy enchanter au Sénégal euh, à travers le capital humain et pour renforcer ce capital humain là il faut s'investir investir davantage sur l'éducation sur la formation notamment accompagner les étudiants sur tous les volets que ce soit que ça soit pédagogique ou social pour que ñoom aussi tamit seen jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ doon dànkanteel a wàññeeku loolu daal moom moo doon sunu tànki nga xam ne tey yi dañ ciy de tickets de restauration Euh, ak euh, des matériels yoo xam ne tey jii nee ay jumtukaay yoo xam ne dina yombal étudiants yi seen nekkin fii ci campus euh, au niveau de l'UCAD